Assalamu alaikum. ngi leen di nuyu di leen ziar di je vous retrouve encore une fois sur votre chaîne A2S Pro avec un immense plaisir di remercier bu baax a baax euh, yi nga xamante ni moom mooy xale la jeunesse sénégalaise nga xam ne démonstration de force bu am solo Oui, si ki nga xamante ni moom mooy leader di le président Ousmane Sonko ànd les leaders de la grande coalition Yewwi Askan Wi wan nañ ak ñimu andal payu paa yu maire yu màgget yi xobidaas yi les dinosaures politiques ne leen ñun dañu soxla un véritable changement dañu soxla une véritable alternance wala alternative malgré lool yëpp gis ngeen ñi nga xamanteni ñom ñoy les dinosaures politiques yi nga xamne mom la leen di wax te and ak Macky Sall génnoon nañ pour jema yak xelu xalé yi jëm leen influencer

ci Abdou Diouf nekk fa ministre des affaires étrangères il a occupé pas mal de postes dans le gouvernement de Abdou Diouf et de Senghor te taxul mu amal njëriñ sénégalais yi de mu dëkk sax di Saloum amul leen benn politique ni koy il s'enrichit sur le dos des sénégalais Non la politique mooy suñu accéder au pouvoir dañuy séddoo Sénégal jël ko daf ko gàtt ku nekk jël am ben photo bu ngeen di gis muy réseaux sociaux il avait 24 ans étudiant à Paris photo était en 1963 Il a Sall deux ans parce que il est né le 11 décembre 1961 Macky Sall eu deux ans la am bi nek na ci Macky Sall servir Ousmane Sonko. 11 ans après photo bobu ci la juddu 63 ba 74 ça fait 11 ans Ousmane Sonko bobu ñëw na fi ba révolutionner la scène politique sénégalaise indi programme tuddee ko don de soi du solution xale yépp gis ci seen bop parce que xam nañ ne dañoo yàgg souffrir depuis buñ amé indépendance ba légui ay nit dañuy accéder au pouvoir sàcc suñu accédé lek ko ñom ak seen njaboot suñu feebaree duñ fi fajo seen ay doom duñ fi jangé ñun ñuy bëgg a dee ak pauvreté ndax ñoom ñoo ñuy appauvrir parce que suñu xaalis bi ñu war a def ci opito yi war ci créer ay usines industrialiser dëkk bi war a créer ay emplois war a tabax ay écoles yu baax nga xam ne abri provisoire dootul am ay lycées yu baax ay collèges yu baax ay universités yu doy digne de ce duñu ko def ñoom i neen ñoo koy séddoo ci seen biir di ko lekk ñoom ak seen njaboot bu nit ñëwee nag bu mel ni président Ousmane Sonko yee jeunesse bi conscientiser leen wan leen na leen ñii ñu ñu jàppee pouvoir mooy séddoo ñoom ak seen ay xarit dañuy sàcc seen ay xaalis yeewu leen jox leen ma Sénégal ma ànd ak yéen changé ko kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci Sénégal développé jëm kanam ñoom ñëpp nag ñu jóg ni loolu du fi amee di xeex Ousmane lu nekk ñu tuumaal ko ko wax nañ fi salafiste la. wax nañ fi rebelle la wax nañ fi ne dafa am ay euh, lobby étranger yu koy nañ ko fi viol nañ ko fi dara jeunesse bi nga am nañ ci président Ousmane Sonko ñoom en taxaw takku le président Ousmane Sonko Idrissa Seck mu doon wax tamit référence Idrissa Seck c'est un traître dafa trahir sénégalais parce que dafa venu di sénégalais yi ne Macky le il traitement Macky de tous les noms d'oiseaux euh, Maxal, sa vision se limite à Diamniadio Macky Sall boqoot la Macky Sall tapet la Macky Sall ay waxam jarul sa Macky Sall c'est un comploteur un problème Macky Sall au sein du PDS un comploter Idrissa mo wor sénégalais yi dem and ak Macky Sall gannaaw bi mu institution bu tudd euh, conseil économique et social environnemental c'est une institution budgétivore xamulon na sax sénégalais yi né mom bu faloo loolu da kay supprimer parce que pour yàq xaliss la légui nak mu dem uyu ji Macky Sall ci mburok sooba ñu jox ko institution boobu nga xamné da ka doon clash mais c'est une institution budgétivore mu jël ko je kon kooku nit ku ñàkk jom la nit la koo xam ne amul amul vergogne te workat la ba pare du waxkatu kon il est mort politiquement élection yi passé élection locale waa Thiès nañ ko ne la parce que workat nga parce que bi mu woree am benn Il bu doon jub nitu Thiès nitu Thiès nitu Thiès ñu bëgg à travers son geste waa Thiès nag wane wan ko nako carrément dañ la méré parce que da nga yak suñu der ba sénégalais yi génnee benn baat bu tudd nitu ties kon Idrissa Seck bobu def na né amul kenn ko xamante man mën na la jox leçon ci Sénégal parce que du référence Aminata Mbengue Ndiaye man bima ma xalé 1996 bobu ma ngi école primaire ci la doon dégg ñu né moom mooy ministre de la femme de l'enfant et de la famille lan la def Sénégal lan la defal Sénégal

mel kuko seyel ci benno bokk yaakar kon ñooñu duñu ay référence dégg nañ leen ñi wax xalé nan lañ euh su ngeen génnee da ngeen di dem di dé fofu non te Ousmane Sonko doomam yi ñu ngi kërëm Mimi Touré sax moko ñëk sani. wax Mimi Touré mi nga xamanteni mom Macky Sall mouchoir rek la ko jappé quoi mom day ñandu rek sanni bu soxlawaatee roccuwaat mouchoir sanni wat comme ku yoré sa paquetu mouchoir rek Macky Sall loolu la koy doy wala ku yoré sa benn torchon boo bëggee fomp dara lu salte nga fomp boo torchon bi salte nga sànni ci corbeille bi après ñu fóot ko nga jëlaat bu tilimaatee boo gisaatee fu tilim nga ñëw fompaat sànniwaat defe naa ne moom mook ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niasse ak Idrissa Seck amuñ benn leçon buñ mën a jox fii nii xale yi parce que ñoom duñ ay ñu ñun doon wax xale yi di leen yebal ci internet man dam leen wax ne Ousmane Sonko du génnee domom té yeen lay génnee ngén di dé mais manifestation bo xamné c'est pacifique dans un état de droit dans une république dans une démocratie mais fofu kañ su féké manifestation bi <laughs> elle est elle est pacifique lan lan lañ fay tuddee ay dé kon ñom ay raykatu nit lañ parce que ñom ñoo rayoon xalé yi ci événement mars yi buñu ñu ar euh, bu Ousmane Sonko arbitrairement ba jeunesse bi génn na leen da ngén di fenn waxu leen dëgg Ousmane Sonko kenn du ko fi tëjee wala nguur gi daanu bañu daw ñom ñëpp déserté sen kër yi abandonné Macky Sall ba événement bi jeex ñu ñëwaat di menacer nit ñom ñoo recruté won ay euh xalé ci moment bobu noonu ay nervi te ñooñu ay doomi jàmbur lañ ba paré ci événement yoy sen nervi yoy rey fukki xalé ak ñent nanguñ ci ubi enquête ba légui kon ñom ay ray kat nit lañ motax ñu wax xalé na len bu ngeen demee da di dee parce que ñoom xëy na dañoo préparé pour rey ay xale ba pare taxal ko Ousmane Sonko comme ni ñu def ci mois de mars bi parce que xale yooyu dee ñoom ñoo leen rey ba pare taxal ko Ousmane Sonko ba pare xale bu góor wala xale bu jigéen bu mënti doon jeune fille wala jeune femme euh, ki wala jeune garson boo xam ne citoyen la engagé wu gis ne kat man sama réew nu ñu ko yoree baaxul ne dafay engagé wu bu ñu ootee manifestation mu dem nga toog di ko découragé naan bul dem lu tax du dem. dafa war a dem mais am na ay jeunes yoo xam ne dañu engagé wu mais son ko sax taxul ñu engagé wu mais dañoo gis ne réew mi yore bu ñu ko yore baaxul parce que sonn nañ dañuy jàng ba am ay diplôme duñ mën a am liggéey amuñ dara loo xam ne mën nañ ko jox seen waajur yi nga xamante ni dañoo sonn dund gi cher lépp cher dara doxul ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëg ne Sénégal dafa neex mooy Macky Sall ak ñu àndal. ay ministre am ak ay directeurs généraux ak ay collaborateurs am ñoom daal ñoo yëg ne Sénégal dafa neex ak géwélam bi Farba ngoom nga xam ne fekk nañ këram huit cent quatre-vingt-dix millions yoo xam ne daf ko sàcc loolu xaalis sàcc la parce que Farba Ngom mënul am sax cent millions bay am huit cent quatre-vingt-dix millions parce que Farba ngoom député maire la te géwélu Macky Sall lay wax donc métti gi Sénégal métti ak yàq gi ngeen yàq Sénégal yàq jikko yi ba pare teg ci di jaay nit ñi doole di jaay nit ñi arrogance ak xamadi lolu moo tax xale yu bari engagé wu Ousmane Sonko timit ñew wan xalé yu fulla ak fayda ba paré sacrifier bopam lolu moo tax xale yi am ci mom yaakar top ko Ousmane Sonko manon na def comme ay moromo inspecteur des impôts et domaines ni def ay moromam dem tok yore sa poste dem di contrôler ay yenn entreprise ñu lay guer da nek millionnaire am xaalis bu bari tabax sa ay kër yore sa ay auto yu cher yore ay bien noppi ne man politique ma ñu may la jàmm wala nga ne damay politique ànd ak Macky Sall ñu may la jàmm mais nah, Ousmane Sonko boo gisee eh, tey ñu dàq ko ci administration bi dàq boo xam ne dàq bu arbitraire la c'est parce que dafa nekk nitu dëgg c'est parce que dafa ñëw gis ne Macky Sall sàcc la rakam moom moo ko defalal décret mu ànd ak Franck Timis ñu jël suñu pétrole ak suñu gaz jaay ko 6000 milliards de ko ñoom it mu benn tubab Ousmane Sonko di dénoncer lolu bind livre wané né Sénégal war na mën a suñ ko jaaralé ci yoon bi lu ci ñak moy njub jub mo gëna am solo ci yoré réew té Ousmane Sonko lolu lay incarner lolu motax muy dundul muy dund yen xalé yi ngeen di wax ne tay dañuy dem top ji Ousmane Sonko di dé na Ousmane Sonko dafa ay kërëm mais Ousmane Sonko lu muy daj xale yooyu dajuñ ko Ousmane Sonko bëgg Sénégal moo tax tey mu daj lu muy daj ñii yëpp Ousmane Sonko chaque jour ñu ngi koy jéem a tegal ay piège pour daaneel ko chaque jour ñu ngi yónni ay nit ci télé yeeg rajo yi ñu yàq deram loolu lan moo fa gën a métti jël ay journalistes yoo xam ne c'est des journalistes corrompus ay organes de presse corrompus ñu nekk ci dërëm bi chaque jour subaa ngoon guddeeg bëccëg di sos di fen di invente di yàq dërëm ci borom njaboot est-ce que tey bu toogoon comme li mu wax sànq nekkoon simple inspecteur des impôts et domaine toog bureau di liggéey bañ a intéressé wu ci politique est-ce que noonu lii dina ko dal wala bu àndoon ak Macky Sall parce que Macky Sall bi mu koy toroxal di ko jaax di ko dàq wala bu mu koy jéem a toroxal parce que mënu kaa toroxal parce que bi mu ko dàqee après dem na nekk député voilà jógee fa nekk.

amuñ benn problème parce que Macky Sall àndal Macky Sall moo nekk nit koo xamante ni dafa soxor moom mënul accepter nit di ko opposer moo tax boo nekkee opposant yi nu mu mënti def dina la jéem a toroxal toroxal na fi façon doomi aadama bu nekk te soxoram gi yóbbu na ko ci ba ay citoyens sénégalais yoo xam dañoo am droit am yaakaar ci benn candidat nag candidat bii lañ bëgg soit dañ koy fal ci élection législative wala ñu ne dañ koy fal ci élection locale Macky Sall day fexé ba yow ci élection élection présidentielle élection présidentielle 2019 nous du ngeen candidat Mbaye ñoom Pape Diop ak ñeneen ak ñeneen recalé du ngeen candidat ñu ñëw locale mu dem instrumentaliser ay sous préfets administration euh, territoriale bi ne cible invalider seen ay liste mu nek lo xam lu flagrant la lu ñaaw la élection député yi jot mu ñëwaat en collaboration euh, wala en complicité ak wa conseil constitutionnel de faire la même chose liste yeewi askan bi ci bopam la jël titulaire liste nationale bi né ñi duñ bok sant ko Antoine diom gis nga motax tax na affaire bi dil gis nga buñu rétablir liste yeewi askan wi département bu Dakar si laa wax si sama xel ne ñii naruñ jàmm parce que ñoom lu bon lañ xam Antoine Diom, si lu bon lañ ko nampal namp nampatale xeex nit répression teg complot loolu rek la xam Macky Sall moo koy jël diko utiliser mu nekk ko xamne ku ñak fayda la nangu pour di xex ay doomi aadama rek waye Ousmane Sonko mo leen di të motax tax ma ne dañoo toogoon réunion né ñom légui buñu ñu liste départementale bu Dakar y a wi les gars yi dinañ def recours au niveau du conseil constitutionnel su boobaa conseil constitutionnel dafay rétablir liste bi su ko les gars yi contents. pour bu invalider liste nationale bi su gars yi commencé casse ñoom ñu génn naan waaw gis ngeen bi ñu rétabli rétabliré seen liste départementale bi dañoo tàcc conseil constitutionnel léegi nag invalider nañ leen ñu ngi casse ñi kenn xamul luñ bëgg te loolu yëpp dañ koy parce que ay lañ conseil constitutionnel pas il faut marquer teg léegi ñu dee lu leen sax mu jël du contribuable di leen ger jox leen ay terrain jox leen ay alal tax ñuy ñëw di constitution ils sont censés euh, sécuriser les Sénégalais ils sont censés dire la vérité ils sont censés garantir la constitution parce que ñu ngi leen di tuddee les sept sages kon ñoon dañoo war a sage mais ñuy sage li olof Njaay di wax ne ku la abal bët fu ko neex ngay xool loolu loolu la parce que Macky Sall moo leen fa teg ay ñoom Pape Ousmane Sakho ay Badio Camara Macky Sall moo leen fa teg li ñu def amul benn constitutionnaliste ci àdduna bi boo xam ne diñ ko tegal constitution bu Sénégal bi wala benn expert électoral ci àdduna bi nga tegal ko code électoral bu Sénégal bi mu liir ko gis ne conseil constitutionnel bu Macky Sall bii ni ils ont dit le droit dañoo def lu len neex parce que bo demee ci code électoral bi ñoom njaga la wax nañ ko nga xamné expert électoral la état bi sa day liggéey ak mom ci walu élection Ngouda c'est un constitutionnaliste voilà xam-xam dafa ci jëm ci walu constitution ak ñeneen ak ñeneen ño xamné ne seen xam-xam màccut sax jëm ci walu droit mais jang nañ dégg nañ français lire nañ code électoral lire nañ constitution parce que c'est du français comprendre quoi donc le code électoral bi lan lañ wax wax élection député élection municipale mais liste lay doon liste bi une liste proportionnelle ak liste départementale c'est une élection législative la liste bi dafa war a titulaire ba pare am suppléant waa liste boo xam dafa un titulaire war a am suppléant nga jël liste boobu yow nga léegi titulaire yi ñooy jàll rejeté suppléant bi beneen list bi nga ne suppléant yi ñooy jàll rejeté titulaire yi parce que boobu yaa ngi bëgg a sauver liste benn bokk yaakaar bi nga xam ne dafa jalgati parité bi respecté ko parce que vingt-troisième personne ci seen liste national bi ak vingt-quatrième personne bi dañoo teglante ñaari jigéen foofu ba pare

Euh, yewi askan wi ak ñi nga xam ne ñoom Benno Bokk y te yewi askan liste bi dafa jall parce que dañu duggal ci liste bi ko elle est ba paré defat ko euh, ci euh, ci suppléant mais normalement dañ leena wara may ñom ñu changer ko ko gis nga élection participation règle la war a nekk mais rejet bi kooku exception la da war a teg ay conditions yoo xam ne nit ñi dañoo war a mën a bokk ci élection yi mais Macky Sall yow nga ne mbër nga yaa fi man ci làmb ji am nga doole doo moromu gars yi li nga fi def sa prédécesseur yi sax defuñu ba pare yow bu élection jotee ngay galgal nit ñi ne kenn du dem élection yow yaay tànn sa ay candidat wu bopp mais loolu fan la am kon kañ yow li ngay wane ne yow yaa fi man da ngay sopp boo mënee da ngay ba ubbi làmb ji ku ñëw nga des moom soo ko nga yëkkati ba biir bu nga ci suuf gis président yi fi Macky Sall est allé trop loin dafa dépasser les bornes gis nga déboire ak mais mu en 1983 nekk na candidat Senghor def sax pour rendre inéligible wala yak casier judiciaire Voilà wala mu jaral ko muy dem di changer ay code électoral Mamadou Dia participé nañ ci élection 83 euh, Abdoulaye Wade Senghor la ñëk opposé avant Abdou Diouf 78 bokku na ci élection législative ba am ay député Abdou Diouf Senghor bàyyi 1900 en 1980 décembre 80 5 Senghor démissionné Abdou Diouf jël service 81. Euh, mais nek na fekk Ablaye Wade di japp Ablaye wat di ko tëj parce que Ablaye en train de di tangal deuk bi di marche ñukoy koy des trouble à l'ordre public mais Ablaye wat Abdou le masul yàq casier judiciaire am pour mu baña bok ci élection chaque élection da doon participer 88 93 ba 2000 Ablaye Wade dafa nek di xex ci démocratie bi sax ba consensus am moy code consensuel bi amone 1992 bu Kéba mbay bi loolu c'est indi première alternance au Sénégal kon Abdou Diouf sax moo gën Macky Sall Senghor moo gën Macky Sall Abdoulaye Wade am na fekk Idrissa Seck bi nga xam ne pol poulain am la woon ñu am problème bañ tëj ko kaso mu reconnaître ne dañ ko induire en erreur moom ab Abdoulaye Wade ci boppam dañ ko indil ay foo dossier naan ko ay Idrissa Seck dafay waajal coup d'état ñoom Mahmoud Saleh mii nii Haamaan inna firawna wa Haamaan wa junuduhuma kaanu qaati in ñi nga xam ne moo sës ci Macky Sall nii moom moo doon joué sale boulot boobu di ko gëmloo Abdoulaye Wade naan Idrissa Seck daf la bëgg coup d'état gis nga Mahmoud Saleh ak Macky Sall ñoo doon comploter Idrissa Seck complot Idrissa Seck doon wax Nan Macky Sall c'est un comploteur Mahmoud Saleh mii ci la bokkoon ba légui mu ngi continuer di complot wad bi 2007 bimu mu élection présidentielle dafa baye Idrissa Seck mu participer sans problème 2012 même chose mu am ak Macky Sall problème mënoon na tere Macky Sall pour mu bañ bokk ci élection yi mënoon na ko parce que amoon na lu mu ko jàppee parce que Macky Sall il s'est enrichi illicitement nee am na huit milliards fan la ko jël da ko sàcc sept milliards yu Taïwan yi mënoon nañ ko si jàpp ci blanchiment d' argent convoqué woon nañ ko dig mu dem di jooy ci sëñ Baara ànd ak Galas Kaltoum ne Macky Sall daf euh, Ablaye Wade daf ko bëgg a tëj di jooy naan man damaa ragal kaso te Wade daf maa bëgg a tëj ko récépissé ci partem bàyyi ko mu dem à la conquête du pouvoir ba gagné Ablaye Wade 2012 Ablaye Wade am élégance reconnaître defetam oo ko félicité ko koo xam ne yaa ko yar ci politique bu ko sénégalais yi xamee yow yaa tax nga bàyyi ko mu bokk ba pare gagné la nga reconnaître ko ba pare wax ñi ngay àndal ne jàppale leen ko bu leen ko xeex mu ñëw rek déclenché xeex bi di acharné wu ci kaw ab lay Wade ak famille nangu kër ab lay Wade jàpp Karim Wade tëj ko exilé ko. il du gor jaam la il est allé trop loin il rek mo fi ñew tay sénégalais yi teral ko Yalla, sax parce que yalla daf ko jaarale ci gouvernement mu a pas mal de postes ci directeur général Petrosen ba ci président de l'Assemblée nationale en passant par le de ministre de l'Intérieur euh, ministre des Mines premier ministre le président de l'Assemblée nationale amak problème au bout de quatre ans Abdoulaye ci président de la république wax na wa amma Il rabbika fa a gëm euh, gëm parce que wa man shakara fa yashkuru li nafsi mais defu ko Il rek déclenché xeex di jaay doole ku yëngatu am ambition mu la toroxal Khalifa Sall toroxal Karim wad japp activiste di di rapatrier ay activistes ñoom Assane Diouf di leen jiiñ ay terroristes di def di n'importe quoi ñu and ak mom di def lu leen neex te dara du leen dal Seydina Fall Bougazelli fii la trafiqué faux billets ay milliards et milliards ñu tëj ko 6 mois genné ko ci kaso dafa feebar. Assemblée nationale am beulé na la gis nañ fa façon député bu nekk député trafiquant de faux billets député trafiquant de passeport diplomatique député. ivrogne mandikat jibril War nga xamne mo tejlu Cheikh Omar Diagne and ak lobby gor jigen tejlu Cheikh Omar Diagne ko ak député agresseur ñom Mbéri Silla ak ñom Aliou Doumbérou Sow di génné ay jass di menacer ay nit kon violence suñ koy wax Macky Sall mo tax mais Ousmane Sonko n'est pas violent Ousmane Sonko dafa xam Macky Sall bu lo oowee ci violence da ko ci uy ci ndax mu man la jox cër mais bo nekké di noy rek mu ray la gisoo Khalifa Sall bi ñu ko fi convoqué muy nekk di jooy boobu la ko ray ba mu dee mais Ousmane Sonko dafa ñëw xam ne kii xamul loi xamul droit rapport de force la xam mu ne ko nañ ci dem ba mu saf sàpp Ousmane Sonko affronté ko te chaque jour bu dajee ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina ko duma xam nga ñoom ñu ngi recruter woon seen ay nervi ne dañuy yàq de manifestation mais bu ñu gisee mbooloo mi dañoo reculer def nañu le tout pour jéem a yàq manifestation bi mais xale yi ñoo bëgg Ousmane sonk yow dem nga ba impopulaire sénégalais yi bëggatuñ la amatoo benn légitimité nga ne léegi da ngay ag agrippé wu ci pouvoir bi ne doo ko bàyyi par force sa ay nit topp la di la jay naan la li nga fi def kenn def ko doo moromu gars yi pouvoir bi warul dem ci ay loxo Ousmane Sonko mais ci ñun la war a des wala ñu jox ko ku ñu neex sénégalais yi dañoo amoon ngor wóolu la. jël pouvoir bi jox la ko ne la yow lañ wóolu dénk la ko te ñaari mandat nga am droit am mais amoo benn droit nag ne sénégalais yi bu ñu bëggee nangu nag seen réew nekk duñ ko jox kii wala duñ ko jox kaa sénégalais yi ku ñu war a jox seen réew yow doo leen ko wax yow su leen Ousmane Sonko doyee comme yow nu ngi leen doyee woon en 2012 Ousmane Sonko lañ koy jox par force te doo ci man dara moo xam sa ay lobby ak ñi nga àndal ak. ay général Moussa Fall ak ay Yakar sa ay juge peuple bi ñoo leen ëpp doole té bëss bo fi forcé da démonstration de force bu ñu wane demb loolu mo la se wan yow dinañ dal ci sa kaw lañ bëgg mais yow bëggul luy indi jamm ci Sénégal xam nga ko luy indi stabilité ci Sénégal xam nga ko nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs Vous fi révision constitutionnelle mars 2016 ne affaire yi mandat bi day indi problème bind ko ci sa ben livre bu tudd Sénégal au cœur ne bi moy sa premier mandat yaa ngi laaj Sénégal en 2019. deuxième mandat donte da nga sacc élection yoy suñ lako joxé bob moy sa deuxième et dernier mandat sacc nga ko bàyyi nañ la nga sacc waxuñ la dara mais doyna do fi nek nak na da ngay forcer wax ko ci les rencontres les plus solennelles wax ko devant le président Kabore bu Burkina Faso nan dafa jékki-jékki rek di tawta te parce que troisième mandat bu ñuy wax man ma voté lu constitution bi révision constitutionnelle bi voilà bi ma nekk mooy sama premier mandat su jeexee ba ma amee euh, su ma sénégalais yi renouveler seen confiance jox ma beneen mandat man après dama ci daal di pare toog ba mu nekk mu commencé wéy du ma wax wii du ma wax non ndeke boobu mu ngi ci tànk wor gaay mi ku génn dem ci presse bi ne mënu am mu dàq la ku wax ne mën na am mu promouvoir la yokk sa garab yéen da ngeen a foog ne yéen moom Sénégalais yi wala yéen yéen gën Sénégalais yi wala Macky Sall moom moom rek moom moo fi war a nekk président pour lan bëgg éterniser wu ci pouvoir def comme ñoom Denis Sassou Nguesso ay ñoom Paul Biya ay ñoom euh, Obiang Nguema loolu mënta nekk Sénégal billahi wallahi watallahi la jeunesse est déterminée te dinañ ànd ak Ousmane sonk ànd ak ñoom Barthélémy Dias nga xam ne ñoom ñooy aveniru Sénégal xale yi yaakaar nañ leen boo naree ànd ak conseil constitutionnel bii naan da ngay éterniser wu ci pouvoir bi wala dañuy valider sa candidature en 2024 su boobaa nag dinañ dal ci sa kaw te bu ñu dalee sa kaw dina métti lool di nga xam sa ay gendarme ak say policiers ñëpp ak même armée bi donte nous avons une armée républicaine ñoom moom gisuma sax ñu leen di manipuler quoi manipulation bi yëpp ci gendarmerie la ak ay policiers parce que day jël ay larbin ay poltron jiital leen pour ñi dal ci kaw askan wi bu manifestation amee comme général Moussa Fall waaye Moussa Fall ak Samba Fall ak Paté Fall ci yam le peuple est souverain Sénégal dañ koy nangu dénk ko parce que bi moy ce deuxième et dernier mandat te 16 mois mo la fi dese lolou il faut nga xam ñep paré nañ pour bo fi naré forcé ñu dal sa kaw foqar ñi suñu pouvoir kon

te amoo autorisation wala nga tal auto jambour wala nga tal keur jambour donc yooyu yëpp jaaduwul de dañ lay atté comme terroriste lutax tax te yéen ci sen bop yeen li ngeen di def mo gëna a bon yéen da ngeen mérité ñu tëj leen à vie perpétuité parce que détournement dañu public li sénégalais yëpp bok ngeen jël ko diko ko lekk yéen ak sen jabot sénégalais buñu ñu feebaree duñu faju ñu ngi dé ci hôpitaux yi ay liir di dé ci hôpitaux yi ndax euh, installation bu bon buñu def ci ay hôpitaux personnel médical amout matériel médical bu doy amout ay scanner problème la radiothérapie problème la machine bu ñuy défé dialyse problème la Sénégal ku ñëw ci urgence duñ la jël en charge dañ lay laaj xaliss wala nga dé médecin yi doyuñ sages-femmes yi doyuñ aide soignant yi doyuñ hein ah, infirmier yi doyuñ spécialisation yi doyul hein ah. amna ño ñoo amna yenn spécialité yo xamanteni amul Sénégal ci yenn hôpitaux

mu nekk gàcce gàcce la ñii dañoo yàq Sénégal ba mu yàqu moo tax jéem nañoo valider euh, jéem nañoo euh, sauver Mimi Touré valider seen liste bi nga xamante ni dafa irrecevable ne yooyu yaay dañuy invalider titulaire yi yeewu askan bi man dama leen di laaj sax bés bu ñu demee ba nga xamante ni ñoom seen liste titulaire bi waa Benno Bokk Yaakaar def nañ su fekkee ñoo gagné te yàlla tere buñ gagné woon tey ñu def ñu premier ministre yàlla tere nag yàlla bu mu am bëgguma loolu de léegi kan mooy remplacer ñu te pourtant 160 députés il y a am buñ ba kenn dee ci yàlla tere kan mooy remplacer kooku dee ci liste a euh, Askan Wi tamit pareil ay ay ay suppléant nan la ñuy demee bàyyi ay titulaire loolu fan la am té ki nga xamné photos nek nekk liste bi photo ci liste bi nan def xam nga dañuy nit ñi lu masta am Sénégal ko indi ñu ak ak parce que ñom ñoy vraie opposition wa Sénégal dama leen di opposants c'est des mécréants c'est des mécontents jaloux bon soxor di opposer opposition au lieu que nous opposer Macky Sall nga nous ne fait des nous avons opposer kon nous ay fait lañ leen jël nous leen les nous leen fait des nous avons Askan ak nous majorité de l'Assemblée nationale jox leen nous ñu fait loi liberticide nous fa Macky Massa nous ñi nga nous avons nañ ay droit comme ay Khalifa Sall ak Karim Wade rendre nous inéligible inéligibilité loi yu bonne, nous ñu ko teg suñu gouvernement defaraat dëkk bi ba pare gunge ko pour 2024 mu génn dëkk bi abal ñu suñu dëkk ñu jël ki nga xamante ni moom la sénégalais yi wóolu moo xam Ousmane Sonko la moo xam keneen ak keneen ñu dénk ko mu doxal réew mi Sénégal jëm kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah